Bonjour, Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 60, situation de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce jeudi 30 avril 2020, le ministère de la Santé et sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1161 tests réalisés, 51 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 4,39%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 40 contacts suivis par nos services. 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 1, Maris 1, Touba 8 et Maquet 1. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Dalal Jam, 7 guéris. Touba, cinq Ziguinchor, 3. Fan, Et Diamniadio, 1. Deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 933 cas ont été déclarés positifs, dont 334 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 589 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention collective individuelle. Assalamu maa ngi fii ñëw di leen di jottali lim bii ñu jot tey ci mbas mi tudd Covid 19. ci bésu tey bii di alxemes di fanweeri fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na résultat yi ci examen virologique yi ci junni ak téeméer. ak juróom benn fukk ak benn ci test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak benn dellusi nañu am doomu jàngoro ji yooyu nag ñu ngi tëddee nii ñeent fukk moom lañuy wax contact yi nga xamante ne suñu bëri bu liggéeyukaay yi ñoo leen di saytu fukk ak benn moom lañuy wax transmission communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi benn ca mbaaw benn ca maris juróom-ñett ca Touba Mbàkke benn ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent biñ leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom wër nañu ñu ngay jógee ci bëj bu forikaay yi ñuy wax dalal jàmm juróom-ñaar wër nañ fa Touba juróom Sigicoor ñett Fann trois ñett Diamniadio benn ñaari cas ñu ngi ba tey siñ service réanimation yi ca hôpital principal ak ca hôpital fan ñi nga xam ne ñoo fa tëdd des fa seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ba mbas mi ñuy wax Covid 19 duggee ci suñu réew ba léegi am nañu juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent wër nañu juróom-ñeent génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon. ñu dese tey ci ñu ñuy faj juróom téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ñu gën a topp digtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee kenn du am doomu jàngoro ji duñu ko wàllante mbas mii ñu naan Covid génn ba faw ci suñu réew bi tudd Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.